bala ñuy jàll di nuyoo sa gan yu baax yi fi nekk ñépp doon ay responsable moo xam ñi nekk ci biir ramp moo xam ñi nga xam ne dañoo bokk ak ramp lu leen yëkkati ba tax ñu pëndal seen tànk ñëw fii ci jataay bi di nuyu ñépp ñi nga xam ne ñoo wootee ci wuy si bi xanaa di la gërëm yow ak ñi nga àndaloon bi ngeen rotsee ba ci sama kër ñëw seet ma waxtaan ak man ci li nga xam ne moo leen yëkkati waxtaan ak man ci li nga xam ne mooy seen mébét te mu am ci lu bari loo xam ne dama ko bokk ak yéen euh, ñu dalal jàmm ci Thiès gi nga xam ne moom la ñu am ndax moo nu boole ak Sénégal Thiès nag dafa am histoire ñenn ñi am nañ luñ ci xam ñu bëri am nañ luñ ci dégg te xamuñu li lal histoire bi dafa am jamono mu am lu xewoon ci Sénégal ñu am kuñ ko moomale xam nga malentendu bu amee yeneen malentendu yu ñëw dolliku ci la muy jur faw mu am conséquences yuy doy waar mas naay waxtaan ak président Ablaye Wade boobu nekkatul président ma xamal ko ne ko say conseiller ñàkkoon la jox conseil ya ca war moo waral bi nga jotee Idriss Seck yeggale woo chantier de Thiès ndax soo ko yeggale woon kon tey li xew lu bari du xew mais ñàkkoon na yeggale chantier yi moo tax waa Thiès defoon ni dafa am Idrissa di leen liggéeyal mu am wàdd mi leen bañal mais la vérité historique la vérité historique moy bu faites deug rek tax ñuy wax la vérité historique moy que même les chantiers même idée bi du idée Idrissa Seck ñaarel bi même la décision défé ko bir ties du xalaatam Idem, c'était yobou ko quelque part au sud du Sénégal c'est l'armée qui avait estimé que bërëb bagn ko naroon yobou mënu woon pare ca diggante booba ak mil 2004 ñu ni cees moo fi amoon loo xam ne buñ ci sofee tuuti mu mën a àgg c'est ça ñaareel ba li jotale wàdd ak Idriss du chantier de cees loola képp koo xam ne suivre nga CDE suivre lui et moi boo ko déggee ba ca biir di nga xam ne du chantier yi leneen la koppar la. kopparu njublang la bu amee woon feneen mu am ci njabootu Ablaye Wade ku ko jëli di ko indi ñu jàpp ko aéroport Bourget président Abdou Diouf intervenir auprès de Chirac ñu bàyyi kooku premier ministre war a dem pour jëri koppar yi jël leen dugal leen ci ay comptes un peu partout dans le monde y compris en Afrique du Sud

mom ci bopam mi ngi jog di wéq Cees ki nga xamné boko falé maire musul téw maire premier mandat deux fois deuxième mandat ñaar yoon la téw maire yi ñetteel moy mooy bi muy def passation ak man boko Cees ñoru ko alors kon yeen wa Cees bu fekkee ne ñew nañ ba tollu ci tay mu ne moom non seulement dafa bëgg jité Sénégal waaye amna numu ko bëgg jité yeen wa waa Cees ko xam vous avez la responsabilité de sauver le Sénégal Khamal wa Sénégal ne qui, bañu ko denké mosul té téye suñu yef. première fois téyewu ko deuxième fois téyewu ko té troisième fois biñuy and man ak mom parce que jaaxle na waa presse baa ni ñom féké nañu ñuy def meeting de clôture muni ni dootuma absenté ti plus de dix jours ñaar mu ni lépp lu ma amoon ci business dinaa ko rapatrier Thiès daf ci teg ne ñetteel bi sama jabar sax bu bàyyee ñëw ma wutal ko ñaareel c'est la vérité historique est-ce que loolu am na xam nga loolu amul tey soo waxee dëgg dañ naan da ngay xastee Serigne mu ne moo boo nekkee ci dëgg bu ci ragal wéet te ragal wéet ba wétti li ko taxal j'ai dit président Macky

ñom ñoo jog ne dañuy jakarlok mom ñi ci ay mer gembu lañu je peux comprendre quelqu'un qui par principe depuis le début a eu des divergences profondes avec mom d'accord ak mom mais ñoo xamné que tant que ñi ngi won ci gouvernement tant que ñi ngi won ci wetam tant que ñi ngi jot ay enveloppe ak lenen Nous ne dégg ñu wax bu ñu né ba ñu ci biir gouvernement ñu jog donc commencer commencé di dire que le Sénégal a besoin de justice que le Sénégal a besoin d'institutions fortes, que le Sénégal a besoin d'une économie buy jëm ci kanam nous n'allons pas l'accepter nous allons nous mettre en mouvement nous sommes déjà sur la rampe ah su fekkee nag da nga bëgg am ndam na ñépp comprendre lenn mooy dañuy fàtte suñu bopp jiital li nu combat ki koy gagné mooy ki gën a motivé. waaw. te tey bu fekkee ni ay nit dañoo toog di xalaat loo xam c'est au-delà de la présidentielle ñi ngi ci erreur ku naagu daagu ku daagu ñu raw la bu kenn jàpp ne c'est plié parce que soo ko defee mënuloo mobiliser nit ñi je pense que stratégie bi nga xam ne moom nekk ci ramp nekk ci yeneen force yi dajaloo fii mooy kenn ku ci nekk seet li nekk ci le meilleur de li ne ci moom mu dajale ko ñu yenn divergence yi joxante loxo nga xam ne boo demee ci quartier yi village yi boo ci yi ne ak un an parce que tey le 24 février incha le 24 février 2019 sous quel ku ci nekk la la soxla ko pour pour faire l'union dans le combat il faut savoir clairement nettement et d'ailleurs par expérience en quoi précisément et dans quelle mesure précise nous pouvons être unis sans quoi tout ce que l'on dit de l'union dans le combat n'est que mot mot et mot. Donc le message que je lance aux membres de Benon, aux membres de la paix, et aux membres de la rampe, aux membres de toutes les organisations qui veulent soutenir le président Macky Sall, moi, il faut s'unir. S'unir sur le terrain, s'unir sincèrement, parce que c'est s'unir au péril. Alors, nous avons wouti wut te

mën naa wax ni moom ci maître yi ci la bokk fii Thiès ñun nag Thiès lañ dëkk naam mais dafa am suñu xarit tey buñ fi indi muy Amady Dieng Amady nag nit la koo xam ni dañu am relation bu bu yaatu Dakar. ñu dox ko ba ñëw Thiès mu woo ma tey ci li muy organisé ak Ramb mais encore une fois li nga xam ne moo ëpp solo mooy l'union and moo tax and bi nga xamni amadi bi ko bëgg bëggal ko président de la république ci sénégal yëpp moo tax tey bi ñu woyé ñu ñu and ak mom ci li nga xamni mom la organiser nam dafa am fu ñu waroon dem ba ñoo ñi ngi doon xaar mais mënu mu won bouger c'est togu mak mom fi ba kérok donc mu wax li ñu wara wax c'est est ma ngi ci ci lu bu baaxa baaxa baax encore une fois amadi toutes mes félicitations parce que li nga def euh, ñun waa Thiès ñëpp dañ la ci sant di la gërëm ndaxte woote nit ñi wuy si la loolu lu jafe la surtout nga nekkoo sax ci dëkk bi nga nekk beneen dëkk nga ñëw ci am dëkk woote nit ñi wuy la loolu lu jafe la donc ñu ngi ciy félicité di la encouragé et la xamal ni lépp loo jàpp incha allah nañ ci jàpp monsieur le maire encore une fois aussi toutes mes félicitations parce que li nga wax kenn mu ci yokk dara vraiment maa ngi leen di sant di leen gërëm bi Augustin Tine jiite en tant que coordonnateur départemental Benno Bokk Yaakaar délégation bi ma àndal maak euh, Madraba Wade Cheikh Tidiane Fa euh, Babacar Ndiaye ak doyen Mor Niang di rafetlu euh, mobilisation parce que ñëw naa fi depuis ay 16 heures fekk naa fi Saalum Ndiaye ak femmes yu bari wax dëgg yàlla Euh, cette mobilisation ñu ngi leen si remercier De remercier aussi suñu raktaale si da si message bu mu délivré di wax suñu petit frère suñu Khalid, Amady que lii nga def ñun nga ko ñun nga ko defal parce que depuis presque un an deux ans ñu ngi liggéey bëgg rencontrer mouvement de soutien et parti politique yi def benn plateforme à Thiès pour unifier suñu doole nga ñëw tey dëkkoo Thiès woote ramp

ñun ñëpp ak état la c'est bien sûr sama petit frère il va faire peut-être une déclaration importante demain dans son combat historique ñun ñëpp nañ dajawaat bu fi di Dieng jugee ñu woote ramp dëgëral ko yaatal ko parce que nous sommes fii une trentaine de partis politiques loolu buñ ko defee yaakaar naa ni résultat politique yi dina gën a mën a am doole fii ci Thiès maa ngi waxtaan ci turu ñi nga invité nekkuñu fi muy Omar Diop au nord, Seynabou Ndiéguène, Ndeye Tické Ndiaye à une femme de de l'Ouest, docteur Ndiaye euh, honorable député vice-président national euh, de l'Assemblée Abdou Mbow docteur Ndiaye ñoom ñëpp dañ fi teew mais ñun fi teew rek teew la ñu ñëpp kon Amady ñooñu boo leen gisul yeneen occupation moo leen téye mais ñun ñoo wax ni ñu yónni ñu tey ñu wax ni ñu ngi lay remercier lii nga def. defal nga ko Thiès defal nga ko Augustin mais aussi defal nga ko président de la République yàlla na si yàlla may ndam ñu partage ko ñu gën ko. beneen information bi nag mooy dama leen yëgal ni liste électorale yi ubbi ko na bind mi ñu ngi binduwaat pour élection yi président joxe décret 24 février 2019 liste bi ubbi na ñu ngi ubbi liste bi 1er mars ba 30 avril képp koo xam ni da ngaa dund loon si élection yi passé képp koo xam ni sa carte dafa waroo woon bulletin de naissance bi carte bi wala photo bi yàqu na nga dellu si commission bi ñu defaraat ko ba avant le 30 avril nga mën a am beneen carte beneen xale yi am 18 ans wote bii di ñëw 2019 ku si am jarbaat walla doom bu jigéen wala bu góor mu am 17 ans na nga dem wut pièce d'identité état bi mu bindu pour mën a wote en 2019 loolu daal moo loolu laa bëggoon yokk. ak carte yi carte yi bi ñu wotee ba pare des na fii 33000 cartes fii si département Thiès ma ni 33000 cartes mi ngi fii loo xam ni seen borom jël ñu ngi préfecture est ñu ngi préfecture ouest kon nag bu ngeen di bindu ji boole leen ci tam yéen acteur politique yi ngeen dem seeti seen carte ndax carte mooy mën a wote mën ñu mën jox ndam pour président public incha allah jërëjëf. ak taxawaayam bu rafet ci wetu askan Sénégal. lu tey yàgg la mais surtout xam ne foo dem da ko fekk fu mu nekkoon parce que lu mu gën lu mu gëm dafa dëgër te dafa wéeru ci dëgër ci dëgg yaakaar naa ne discours léegi wane na moom askan bi ak intérêt askan bi léegi askan fu mu nekk rek foofu la nekk te lu muy wax daf ko xam.

te ñu ngi baaxal yépp yàqu ñu dara mooy les doyens de Benno Bokk Yaakaar c'est vrai notre doyen Brin quand il la parole et qu'on le regarde buñ ko gisee déglu ko xam nañ ne seen un pionnier qui parle mais yaakaar naa ne Sénégal dafa bari yu mel noonu yàlla moo ko sos fii te ñu ngi koy njëriñoo bu baax a baax baax a baax a baax maa ngi aussi félicité di remercier di ziar suñu jigéen yi lépp ngeen ci suñu taxawaay dëgër rek rafet yéen ko dëgëral yéen a ko rafetal maa ngi aussi nuyu jeunes leen jur seen tànk la ñuy mun a topp mais tey ku bugg defar Sénégal bugg am Sénégal. ci yeen ak ci jeen yi la wara jaar c'est la voie obligée ma ngi leen wax ne Thiès ñew ñu fi parce que dañu bëgg ñew fi rek non affaire bi fi la am fi Thiès moko yoré Thiès nak du tay ëlëk la woon ñun yàgg nañ ci politique ñu ngi fi depuis Senghor mais xam nañ ne bu ñu waxee politique dëkk ñaari gaar moo ko moo ko moo tax yéen nag lu fi gën a fës ci Thiès waa Thiès dañu ko rek te histoire Sénégal xam na ku ñu àndaloo su dee di yow yaa bàyyi daw ñoom duñu daw yaakaar naa ne loolu nag monsieur le maire wax na ko léegi dañuy abuser cette confiance dañuy abuser confiance mais vous ñu bu leen que tey gis seen taxawaay seen wax ñu xam ne loolu na naxaati bi gudd na que ñu am xam-xam am jaar-jaar nañ ko yoon bi lu ci yoon bi donc monsieur le maire merci pour ton tes

xam naa ne waa ramp mun nañ ko parce que am nañu xarañ bi am nañu euh, dal bi am nañu pexe bi am nañu aussi intelligence ñu nag xam ngeen ne tout à l'heure le maire de la la ville de Thiès a dit ce 24 février bi bés dangay compter bés bés ba 24 février prochain bés boobu heure bi day fekk fal nañu président Macky Sall au premier tour donc loolu moo tax ñun ñun ñu tànn bés bii 24 bii 24 février bu ñu tànn bii du gratuitement de dañu bugg ngeen compter ngeen xam ne dans un an ci fii ci at at bés bi bu delluwaat dellusiwaatee bés boobu mooy vote bi heure bi day fekk fan lañu président Macky Sall incha allah donc tey bés point de départ nañu compter ku nekk. responsable Benno Bokk mission la mission dugg mission mission dugg bi nañu taxaw sénégalais ñu âge bindu war nañu am carte d'identité war na à partir du 1er mars mars bi ñëw premier bi lay commencé ba 3 mois ba 2 mois 30 avril nañu bind ñëpp ñu war nañu bind taxaw ci récupérer carte nous avons solo 33 000 4 000 ngi do ngi ci commissaire ci administration bi mais bu ñu distribuer carte bi ku am carte am bi bu le 24 février 2009 nañu génnee nit ñi massivement ñëw voté ñu am non seulement taux de participation bu mais aussi ñu si bari comme ñu ñoo taxaw ñu ñoo woo nit ñu ñoo organiser nit ñu si bari voter le président Macky Sall ñu may ko ndam le 24 février 2009 loolu yaakaar naa ne leer na te ñu si war a taxaw wan leen seen bopp benn bokkaat mu ngi fii monsieur le maire mu ngi fii mouvement yi mu ngi fii ramp mu ngi fii et incha allah rabbi ñun ñëpp dañuy lonkoo nekk benn ànd ak acteurs politiques yi xal la yoon bi yóbbu ñëpp ci président de la république fekk le 24 février ñu jox ndam bu leer nañ ramp nag ñu may jiitu wax na ko. wax nañ ko ñun dajale ak boole bañ a siisante bañ a bañ a génne kenn lu ñu am ñu bokk ak yéen fu ñu taxaw ñu gis leen ak yéen ngir yaatal mbootaay mbootaay président yaatal taxawaay président gën a fësal liggéeyam ak taxawaayam ci réew mi loolu moo tax ñu xeebuñu kenn donc euh, suñu appel. te ci kaddu président lay wax di ko waxal responsable politique yu nekk ci Thiès ñoom ñëpp fàttuma kenn bu mu limee damay juum di ko waxal waa Benno Bokk Yaakaar di ko waxal tous les mouvements mu bu ndaw amul de tous les mouvements yenn mbootaay association de femmes association de jeunes mouvement organisé ñu xam ne gëm nañ ne acteur politique bu xam ne gëm nañ ne ñoom gis nañ liggéey président nangu nañu liggéey président bëgg nañ jàppale président ñoom ñëpp président lu mu wax mu ne ngeen ànd nekk parce que élection bi man may candidat du candidat mairie du candidat député candidat président de la république maay seen candidat ànd leen nekk benn lu war daanu ñu ko le 24 février ma toogaat ci place bi ma continuer liggéey Sénégal responsable politique yi xam ne bokk nañ ci APR déggul nañ déggul déglu nañu président Macky Sall nañ ko jëfee nañu yaatal nañ ci boolee mouvement yi mouvement yi am nañu am am am nañu solo de mouvement yi am nañu taxawaay de mouvement yi am nañu dëgëru lay de ah président Macky mu ne moom ku nangu mouvement yi moom nangul mouvement yi ku nangul mouvement donc ñun acteurs politiques yi nañu boole mouvement yi nañ leen woo nañ leen jox cër nañ leen associer nañ leen def ko jox may joxe confiance parce que xeex bi dafa war a yaatu dafa war a xóot dafa war a dëgër pour que ndam bi leer leeraay bu nga xam ne kenn mënu ko wéti donc ñun loolu mooy suñu message mais loolu mooy suñu taxawaay aussi mais alhamdulilahi rabbil alamin fekk nañu fi, ñu mel ni monsieur le maire de la ville de Thiès fekk nañu fi, ñu mel Babacar Fall ñu ne fekk nañu fii ñu nos sages nos doyens les acteurs de la paix et de l'unité les sages de Benno Bokk Yaakaar tey si suba dama daje ak ñoom ma wax leen affaire bi mu ngi seen loxo il ci a dox guddi ak bëccëg dajale ñëpp bu leen neexee organiser benn rencontre ngeen tudde ko un séminaire ñëpp ku nekk lu nekk ci biiram wax ngeen raxas biir yi mu set wecc ngeen raxas xol yi ba mu set président de la république parce que attention le maire wax na ko président chance Sénégal la président Macky chance Sénégal kenn waru ko fooye parce que ñuy ñëw te am masque ñoo xam ne avant ñuy sol masque yi xamoon nañu leen munuñu nax kenn munuñu nax kenn le maire l'a dit ce matin am na ñu nga xam ne bu ñu sàgganee ba jox leen réew mi lu xewoon Allemagne ak Hitler mun nañ xew fii nañu ñaan yàlla yàlla musal ñu loolu ñu jàpp fu ñu parce que yoon bi leer gis-gis président yoonam leer na gis programme politique et économique leer na plan Sénégal émergent foo gis foo dem nga gis résultat te mu ci wetu askan wi leen ñu xam ne gis PNDC fu jaar laaj frontière Sénégal ak Piment ñu ci dëkk yi pour promouvoir laaj leen ñu am ñaareel ñu am seen yi ah Sénégal mi ngi liggéey Sénégal mu ngi liggéey te liggéey bi dafa leer nañ wax nag dafa yomb damay faral di wax ne boo nekkee nit nga nekk responsable nga yaakaar ne sa askan ak seen yow am na lu ma la njëriñe lu ma la lu ma lu laaj dafa am na lu ma laaj ci yow boo toogee. da nga wax ne yow ban njëriñ lan nga bëgg njëriñal sa réew c'est-à-dire lan nga bëgg nga war a bëggal sa réew yeewu ne bëgg naa nekk président de la république président la république kenn ko joxe yàlla moo ko joxe président de la république yàlla moo ko joxe c'est un destin mais ambition nit boo nekkee nit nga nekk nit nga mot nit sa ambition lan moo war a nekk. être au de ton pays et de ton peuple loolu moom loolu moom foo munte nekk même si day yàgg si gannaaw mun nga amal njëriñ est ak réew mais yow nee ne comme xale bu daw ñu def fekk la sa classe mu ne boo magee loo bëgg nga ne président de la république loolu ku ko mën a wax ku ci mun a wéeru mënul yóbbu nit fenn fu dul fu nga xam ne du baax nit nag boo yàgg ne da ngay judd pour nekk président république yow doo mos a nekk président république ensuite wax dafa yomb mais président Macky Sall bu mu jógee 2012 bu commencé wax dafa dem ci gox goxaan yi dafa dem ci askan bi laaj leen lan mooy seen yitte lan mooy seen problème mu bind ko delluwaat Sénégal delluwaat Dakar delluwaat ci capitale yi bind programme ñu tuddee ko yoonu as yoonu yokkute 2012 bu mu taxawee di wut Sénégal dafa ne man sama yoon mu ngi nii mu leer nañ saagul kenn xasul kenn gars yi dem place Obélisque mune man du place Obélisque momay may fal askan yi momay may fal ci askan bi lay dem ngeen génn seen kër ngeen voté ngeen jox ko ndam sante yàlla alhamdulilahi rabbil alamin donc ku nga xam ne liggéey mooy wax rek xassante rek te té go dara ci loxo nit ñi woné wa benn programme wono benn rafetay yorin Vous ñu leen de woon vous mosoo ko du tey nga koy Nous ñun nag ñun gëm a déjà basculé Thiès a déjà basculé donc nous euh, ngi leen di gërëm mais surtout avant de terminer gërëm lu waral suñu ah mbay waa Cees yëpp parce que lii dañu ko defar ñun mais waa Cees nga ko defar responsable yi teew fii yaakaar naa ne dooñu ko fàtte parce que dama bëgg a xam ne fii salle bi fayu fii dërëm dañ ko jox gratuitement Baye Serigne moo ñu ko defal Baye Serigne moo ñu ko defal même su dee sama goro la. defar ko pour man kenn daf ko defar pour Thiès pour ko président de la république defar ko tous les acteurs politiques de la ville de Thiès loolu moo tax dafa bëgg yéen ni acteurs politiques de la ville de Thiès en premier lieu monsieur le maire ak waa Benno Bokk Yaakaar dama bëgg dem leen di ñaan ngir yàlla ngeen ngeen xoolam bu baax a baax a baax a baax a bàyyi seen maa ngi leen c'est une très grande personnalité dans la ville de Thiès ku bàyyi léppam nekk ne dama chez moi dama bëgg ngeen jàppale ma parce que wax ko xaritam dama ci président Macky Sall dama bëgg mu ñëw seen wet Sénégal parce que am xam-xam bi parce que

ah mënuñu bàyyi këram fofu lañu dem et voilà la victoire voilà la victoire la mobilisation kat ñu rafet ñu fii engagement ñu rafet ñu dëkk fii ak taxawaay ñii ces grands responsables de Thiès ñëw déglu ñun ñu tuuti ñu xam ne amuñu benn njëriñ déglu ñu sargal ñu may ñu teranga bu teranga bu mel nii mais notre communicateur notre communicateur traditionnel.

parce que yéen gis leen kenn ku dul président Macky Sall bu ngeen gisee ne ñu xam ne dañ ne ku nekk dañ ne président Macky Sall la àndal ku nekk def lu ko neex doo fi daal di jaaxal te def leen déranger xam nañ ko mais yal nañu yàlla may seen yéene bu ñu yàlla may seen yéene lépp jaar si yoon donc fu may terminer monsieur le maire monsieur le doyen ah man de am na yaakaar te xam ngeen APR APR yaakaar lañu tudd. C'est Yakar Moufi, c'est ngi rabbi jusqu'à 2024 Bon, 2035 yaakaar ba jaaxaar bi parce que si tu lañ toog ci dëgg lañ jiital te gis-gis bu leer lañ jiital donc monsieur le maire les doyens de Benno Bokk Yaakaar le moment yëpp ci seen allez voir nos petits frères vos frères qui sont des acteurs politiques surtout de la terre parce qu'il y que yéen il y a y a defar seen diggante yéen en ngeen ànd ak tous les mouvements de soutien sans exception y defar une plateforme autour de la rampe nous sommes prêts autour d'un collège fort pour construire cette dynamique irréversible qui fera tâche d'une, parce qu'il renversera définitivement le son, ce son tant entendu, mais qui est en train de disparaître et de mourir pour que vive le temps de la liberté, le temps de l'unité, le temps de la fraternité, mais surtout le temps du développement pour l'émergence. Nous venons aussi notre frère Yilan Diallo de la presse. Les femmes foutu de con, ça ne am dans la délégation qui est venue de Dakar am na benn jigéen Nous sommes Yilan Yilan Diallo ñu dalal moo ñu jox lekk moo ñu jox añ moo ñu te tout gratuitement ndax lan ndax bëgg président Macky Sall ndax bëgg réewam ndax bëgg Thiès ñu ngi koy gërëm ñu koy sant lii nag cees la cees est une terre d'hospitalité Thiès réewu teraanga xam nañ ko mais réewu jàmbaar la aussi c'est la terre du refus à Thiès bañ fu mu mënoon jógee fii lay tàmbali te bañ bu dëgër du bañ opportuniste donc vraiment ñu ngi gërëm yëpp di sant ñëpp di gërëm aussi la presse suñu journalistes yi ñu xam ne ñoo leeral lépp ñooy jokkee ñooy ñooy tax lépp ñëpp jokkoo ànd nekk benn. ñu leen remercier di leen féliciter seen taxawaay di leen xamal ne ñoom rek ñoo am dëgg Sénégal benn bopp la loolu moo tax souvent damay taxaw di wax ne la presse et la justice dañu war a delloo jukkal wala ñu mukk toog di saaga presse bi benn saaga justice xam ngeen la justice c'est le régulateur de la république bés boo déggee justice ak gouvernement ak république di ñu jooyee rek c'est que musiba am na parce que ñoom. c'est la loi qui dise yoon bi lañuy lañuy wax te yoon bi moo tax réew mi am su dee ku nekk day def lu ko neex ku def day dem fu ko neex di def lu ko neex di wax lu ko neex réew mi am donc loi bi moo tax ñu ànd parce que foofu ku am dëgg foofu lañu koy attee ku am ku nekk ci dëgg aussi foofu lañu koy attee